asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare te di leen ba balaq di fàttali leen bis tey jii ñu ngi teew fii ci Daaru Koso dëkku Cheikh Ibrahima Faty borom Daaru Muxti nuy waajal bis boo xam ni mooy mag Daaru Koso ñu teew fii ci kanamu sëriñ Maxtaar Mbàkke bi nga xam ni moom moo toog toogaay sëriñ Maamoodan di ko defee ci kilifteefu sëriñ Muntaxa Mbàkke ak ci ndigale sëriñ Abbas Mbacke moom borom Darou Mouhty ñu teew fi ngir waajal bis bi mu war doon ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru wi ñu nekk weeru olof dëppoo fukki fan ak juróom-ñett ci weeru tubaab moo tax ñu teew fii tey ci kanamu sëriñ bi ngir woote bis boobu. kon dinañ jox kàddu gi sëriñ Moustapha Diop mi nga xam moom mooy chef de village bu Darou Kosso bu noppee dinañ jox monsieur le maire bu Mbadiane sëriñ Abdou Khadim Ndaw su noppee jox sëriñ Cheikh Abdou Mbacke mu wax ci turu sëti sëriñ Mamadou Dani ci bis boobu nga xam moom lañu bu ne suba la màggal bu ñu noppee ñu jox sëriñ Abdou Lahad Mbacke moom sëriñ Mahmoudan mu wax ci turu bi nga xam ne moom moo fi toog jotaay sëriñ Mahmoudan Mbacke bismillahi rahmaani rahim salaamaaleykum mbokki taalibe yi ñu ngi leen fàttali ni bis bu sëriñ Mahmoudan da agsi na fukk fan ak juróom fukk fan ak juróom-ñett ci weeru janvier ñu ngi soñ ñëpp di soñ yéen kii turu dëkk bi nan ki daa def lu ko raw ndax nu yàlla doon taw feexee nuy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 mbokki jullit yëpp di ñaan président de la république ak son secretaire secrétaire général Boun Abdallah Dionne ak l'ensemble du gouvernement di ñaan aussi les autorités administratives commencé ko ci Aminata Mbengue Ndiaye bu Louga ak Khalifa Dia président association des maire di ñaan bépp maire bu nekk Sénégal ak suma bu nekk ci région Louga ak département Kébémer ak arrondissement Darou bis bii nga xam ne dañ ko jagleel sëñ Mouhamadane ñu ngi ciy woo ñëpp di ci invité ñëpp te ñu xam ne Daaru Kosso la te Daaru Kosso nekk université coranique koo xam ne kilifa yu bëri ci senegal gii fii lañ génnee ñu ngi ñaan ñëpp ñu ñëw ci jàmm fekkee ko ci jàmm fekk sëñ Maxtaar yàgg ko fee fekk ak njabootu sëñ Mouhamadane yëpp. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ok ñu ngi leen ziare bu baax di wax ci turu sëti sëñ Mouhamadane yi ci kilifteefu sëñ Maam Thierno. di leen yëgal bi nga xam ne ñu ngi koy amal le 17 janvier bu ñu nee suba la màggal waxtaan bi muy nekk Cheikhul Khadim wal Qur'anul Karim ki koy waxtaan mooy Serigne Ahmadou Mbacké moom soxna Mariam heure bi vingt et une heures incha allah ci lay commencé ñi ngi leen koy yëgal di leen ko bàyyiloo xel bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatulah aouzu billahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala sayyidil awwalina wal axirin sayyidina muhammadin mbokki ala jamii sahabatihi ajmain mbokki ñu leen di nuyu nuyoob taalibe ak mbokkum taalibeem yëkkati suñu kàddu ci ndigalul sëriñ Muxtaar jëm ci woote bis bi nga xam ne moo di bisub sëriñ Mahmoudan te baaxoo ko def fii ci Daaru Koso jàpp nañ ko fukki fan ak juróom-ñett ci weeru janvier tombeek dafa naa ñaar fukki fan ñaar ci nekk ci weer mi ñu nekk muy weeru wërkat gàmm yi sëñ bi nee na mi ngi ci woo mbokki jullit yëpp mbokki laqarab yi mbokki talibe yi ak dëkkandoo yi ñëpp ñu ngi leen ci woo ni ñu ko baaxu def rek xam nañ ne seen bisa te am ngeen ci ak yittewoo lool waaye mi mi ngi ci mi ngi mi ngi woo ñëpp leen ci soññ rawatina waa dëkk bi ak mbokki talibe yi nga xam ne ñoo koy taxawee ak kenn ku ne wet ga nga ci féete xam nga ko nañ ci daan taxawee rek ñu gën koo yokk te gën caa form te ànd ci ak positif lu mel ni njàngum alxuraan yeeg njàngum xasida yeeg lépp lu aju ci wàllu googu it ñu farlu ci bu baax a baax la ci dolliku mooy euh, conférence boobu nga xam ne dañ koy def bu ne suba la bis bi it ñu ci woo ñi nga xam ne si ne ñëpp ay mbokk lañ te te te daan ci teew euh, daaray kaamil yëpp it nga xam ne moo moo ne ci gox bi di Touba ak daarul waxti mbooleem yaaju ci barab yëpp ak daaru kosub yëpp ñu ngi leen di soññ ci njàngum alxuraan yi njàngum xasida lu ci waaye man rek nga def ko te yàlla tax addiyal ko jëmm ju baax jooju ñuy fàttaliku ak mboolem jullit ya fa nekk yëpp ñuy ñaan yàlla nu fekke ko si jàmm salaam ni ko sëñ bi bëggee te daan ko defee noonu nu toofeexal nu ban defee ko noonu ñuy soññaat sama bopp nag di soññ mboolem sët yi ak mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo ne ci barab bi te war koo taxawee ñoom ñëpp ñu ngi leen di soññ ci ñu gën a góorgóorluwaat yokkaat seen positif te xam ne am ñu lu dul bis bi amuñu lu dul sëriñ bi kon nañ ci góorgóorlu bu baax a baax ba li ko suñ bëgg rek mu amee ko noonu ñu ngi soññ ñëpp nag du ñu tudd kenn waaye eh, képp kuy mbokk wala ngay ab taalib wala ngay dëkkandoo daal suñu baa ngi lay fàttali bis eh, di ko bokk ak yow te ñaan ñëpp teew ci te ñu teewe ko ci jàmm ak salaam te lépp na ko sëñ bëggee mu demee noonu rek sëriñ Tuubaa kon mbokk yi bis baa ngi noonu muy màggalu Daaru Kosso muy le 18 janvier tollu ñaar fukk ak ñaar ci weeru olof bi ñu nekk ñu ci soññ ak di fàttali rek mboolem daayira boo xam aju ci kër sëñ Mahmadou rawatina daayira bi nga xam mooy daayiratul muhsinin wal muhsinat bi nga xam mooy taxawu liggéey bi ci bis bi fii di ci soññ mboolem bépp taali bi rek ak mboolem comme niñ ko waxee ci daari alxuraan ak daari xasida yëpp di fàttali bis bi lu jiitu bis bi muy àjjuma jooju bi si conférence boobu ñu ngi koy gën fàttali mboolem bu baax baax ci seen teewaay comme ni ko sëriñ si xam di waxee wax ak heure conférence boobu muy le vingt vingt une ci bis àjjuma bi ni ñu ko waxee sëñ Ahmadou Mbacke ñu soxna Mariam Darou Mouhty moom mooy def waxtaan yi jëmee ko ci seexul xadim ak alxuraan yi kon nag bu ñu ko def ci barab bi di barabu alxuraan barabu xam-xam jël thème bu mel noonu kon yaakaar naa thème bu am solo la boo xam ni fépp jullit nekk wala taalibi rek war nga fi mën a teew kon ñu suñu borom def ñu toog ba bis boobu ñu fekk ak jàmm te lépp luñ ci yéene ak lépp luñ ci jëf suñu borom ful ko te na ko ci barkab Serigne moom lañ koy defal ngeen Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre chaîne euh, YouTube Tawfekh Production et euh, de suivre avec nous l'actualité nationale internationale.